ah visite bi Ameth def ci cimetière yi moom vraiment kontaan naa ci trop parce que comme doomu Géejawaay la te Géejawaay la dëkk ñun waa Géejawaay lañu suñuy liggéey lu toll nii ba mu toll fii dafay yoon Ameth mi doon jooy cimetière ñëw xool si li ñu liggéey mooy lan vraiment visitam bi mu def nii ñun kontaan nañ ci trop ñun waa ESIMS ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax. Euh, fii de actuellement nag amuñu fii jafe-jafe yu bari parce que vraiment ñu ngi doon liggéey boobu ba léegi te kenn ñëwu fi mais semaine bi ñu waré dindi souf bi ne ci suñu digënté fi ak digënté kër euh, suñu mama waré sar ci lañu commencé rek am ay jafé jafé mais sax du jafé jafé yu tax ñuy wax parce que comme yëg nañ ko amet yëg nako ñuko waré yëg yëg nañ ko défé na dina safaru parce que du yaq dara ci suñu liggéey ñun ñu ngi continuer di liggéey vraiment amuñu fi benn jafé jafé à part ça non non non non ñun ñoy def rek ñun ñoy liggéey ñun ñoy def ñun vraiment xaaruñu ci lenn ñun dañuy def li ñu war a def rek muy liggéey comme dañu opté ñun ñoy def cimetière defe naa kooku doo xaar ndimbalu kenn da ngay def li nga war def rek waaw loolu la cimetière euh, catholique yi mi ngi nekk 4 hectares musulman yi mi ngi nekk liggéey bi ma xool waaw yàgg na nag mi ngi bëgg a yàgg tuuti ah parce que avant Korité ba léegi ñu ngi fi di liggéey waaw na yàgg tuuti. bon visite bi kontaan naa ci parce que ñun ñoo sàkku woon visite bi d'ailleurs ñun ñoo sàkku woon visite bi bon kontaan nañ ci vraiment ñëw na waxtaan nañu wax nañ ko suñuy jafe-jafe et tout vraiment kontaan nañ ci bi. trop bon lépp lu mu ñu waxoon vraiment depuis ñu commencé liggéey ba léegi amul kenn ku mës ñëw rendre ñu visite c'est la première fois Ahmed moi ki fi njëkk ñëw rendre ñu visite pour xool suñuy tolof tolof et tout moo vraiment depuis ñu xamante ak moom dem seeti ko ndax ay détails yu amone mu mu jëlone engagement ne dina fi ñëw seet si parce que benn lay du pàkk xam nga weddi gis nag bokku ci moom ñëw na ba gisal boppam xëñ na moom bu demee dina dina dina ci waxtaan ak ñi mu ci war a waxtaanal yi wax leen li fi gis ça bon dafa am benn dañu amoon excédent de sable excédent de sable bi bon dafa dañu am benn mur de clôture bi dafa waroon a ñëw léegi bi mu ñëwee ba ci suuf si faw ñu génne suuf si ci biti pour mur bi mën a traverser par la suite am ñu jóg ne ñun dañuy jël suuf si di ko jaay te ñun suuf si en plus mënuñu ko jël tas ko ci biir armeel yi parce que armeel kenn du ko sëkk armeel boo ko sëkkee suuf si boo lëggee boo fa suulee nit day suuleeku xam nga te ñu nit duñu liggéey ba egg si fii ay détails yu ndaw di yàq suñu liggéey moo taxoon bi ñu déggee wax boobu nag ñu ne woon nañ dem seeti Ameth parce que ñoom dañ ko woo am lu ñu ko expliquer te moom deful woo ñëwul woon sur le terrain mais tey bi mu ñëwee sur le terrain xam na ni ñun liñ bëggoon a def loolu mooy dëgg. autorités yi ñi doon bañ miir bi jàll fi ñoom ñoo leen contacter ñoom ñu ñëw fekk si ñu fii biñ ñu fekk see ah dañu ñëw wax ne nañ jël suuf si tas ko ci biir armeel yi te ñun duñ ko ci tas fa ma nekkoon dem ak barki dem ci laa nekk duñ ko tas ci armeel yi jamais.

ban jotone fi def conférence de presse jotone fi def marche donc da fay cër di yoon mbir momu ñu top ko ba xam fan la toll danaka li gëna sabab suñu visite tay lolu ci la bok waaw am nañu satisfaction à moitié ndax duma né satisfaction bu ma nee satisfaction à moitié parce que mooy que satisfaction bi ñëk moy fekk nañ fi wa EGIM ci ñi nga xam ne ñoom ñoo chargé wu liggéey bi ñu nekk ñu am Pastef ñu am engagement te vraiment wax deug yalla xam nañ ne ak ni leen déggé ni leen gissé bu doon sen sago vraiment que liggéey bi bés bu paré vraiment du am ben gak gak du am ben tolof-tolof loolu aussi bokk na ci li nga xam ne am na satisfaction beneen sat beneen li nga xam ne nag vraiment aussi mooy li ñuy ñaawlu mooy ah xam nañ ne aussi vraiment que seetaan nañ leen seetaan nañ leen seetaan gu métti parce que am na yoo xam ne soulevé nañ ko ci ay problème mu euh, difficulté yoo xam ne ñu ngi koy traversé te yaakaar vraiment que ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jox liggéey bi sant leen ko waroon nañ cee mën a taxaw taxawaay waaw message bi may lancé a Guédiawaye muy que ñoom ñu war a xam ne waa GLB dara taxu leen a jóg lu dul askan wi leen tax jóg ñun amuñu ay considération politique politicienne nekkunu fi pour di xex ma Samba nekkunu fi pour di xex ma Demba ñun li ñu tax a rek moy askan wi donc dañu bëgg askanu Géejawaay vraiment que soudé wu aussi autour de GLB vraiment ñu jàppale ko ba yu melni cimetière bi ak yenen ak yenen yi nga xamné akla ak yelefu askan wi ñu mën leen ko telloowaat wat seeni loxo. Comme vous le connaissez, tout ce qui touche Guédiawaï nous touche. Raison pour laquelle on était venu pour s'enquérir de l'état des lieux, savoir si euh, le combat qu'on était en train de mener depuis le début a eu gain de cause ou pas. Et actuellement, vraiment, nous remercions euh, Imam Massamba Diop et, euh, comment je Jims. Vraiment, on est très satisfait des travaux qui sont en train de se dérouler ici. Et nous, nous appelons un appel. Nous appelons à tous les Guédiawaïwa, aux autorités administratives, aux autorités locales et à toutes les autorités compétentes qui sont au niveau de Guédiawaye de venir vraiment apporter le touche à ce gain de cause que Guédiawaye a obtenu. Notre dernier mot, je vais revenir sur Guédiawaye là beaucoup. Pourquoi Parce que c'est notre combat. On a toujours mené des combats pour obtenir des cimetières. Parce que comme on le dit, une ville sans cimetière, c'est comme une personne sans âme. Donc nous nous félicitons des travaux et nous nous félicitons également de ce joyeux qui est en train d'être euh, vraiment euh, euh, mis, en place pour, pour tous les Guédéwaïwa. Et nous sommes satisfaits vraiment et nous sommes très heureux de ça.